ay ca bàkk ba jib na générique ba départ na jàngat làmb tàmbali na mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey safa wasaare làmb ñu ngi lay jaajëfal bu baax di am kontaan ak mbékte ci ànd bu rafet bi nga xamante ni yéen a ngi koy ànd wasaare làmb mbokk yi di leen jaajëfal di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi nga xamante ni yéen a ngi koy taxaw wasaare wax ni rek xam nañ ni depuis bi ñu jógee ci korité bi ba tey làmb départ na li traditionnel bi tàmbali na bëre dóor bi tàmbali na mbokk bu ngeen fàttee delloo ginnaaw tuuti le huit le six le sept ak le huit bi weesu fële ca Diourbel drapeau chef de l'état mbokk yi wasaare làmb dégtal na leen lépp loo xamante ni bëggoon ngeen ko gis ci drapeau chef de l'état bi ñuy félicité bu baax région bu Dakar ci ndam lu rëy li nga xamante ni am na ko mbokk yi ñu dellu siwaat Dakar samedi bi nekk journée boo xamante ne journée bu am solo la ci wàllu làmb Ouzin Production moo ñu fa woon grand combat bi doxoon ci diggante Moustique bu Caaray ak Angleterre bu dóor dóoraat mu nekk combat boo xamante ni combat bu neex la mbokk yi combat spécial bi doxoon ci diggante Bébé Garga ak xale bi di Petit mbokki dañuy dem wan leen lépp loo xamante ni jot na fa xew ci ambiance ñëw ci combat yi mbokk yi dellu ci combat spécial bi su ko defee ñu dellu si waat bi ay ca ñu dem. Sylvain Bour Gueweul fils sa de Sa Cadior Bour Gueweul moo ñu wan ginnaaw fils Sa Cadior moo ñu wan ginnaaw Bour Gueweul fils de ci kawam Bour Gueweul ab pànk la de góos Bour dooraat na ko moom Bour Gueweul door na ko mu daanu Bour Gueweul door na Fils de Sa mu daanu. bu Yoff ak Boy Boy Ñambur bu Yoff Boy Ñambur Ama bu Yoff da ko a caxabal wala lu mu ko bëgg a def tël na ko doon na ko tànk xale yaa ngay bëre day daanu wala daanaagul moo nga ca wet ga nu muy def dañuy génn wala si dem abit àtte na ñoo ngi ca kaw saako ya Boy Ndiambour abit bi jox na ko ndam Ama bu Yaraax jox na ko abit baa ngi wax ñaari mbër yi combat bi dox ci diggante Yaxam bu Bawol ak Ramdan Pape Aline jërëjëf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 xeetu bàkk ñuy félicité bu baax xale bii di euh, Petit Lo mbokk yi Petit doom la ci Modou Xarañ Lo waaye ndaanaan la ci làmb da doon bëri xale boo xamante ni bébé garga ci defet la jóge bi muy ñëw waaye mun naa ni moo jiitu Petit ci làmb nombre de combay sax du benn buggoon am lu mu wone ci làmb moo tax mu jël Petit bébé garga ñëw na toog fii ma laaj leen ñoom ñaar ku ci nekk mu wax waaye bi ñu waxee man su ma yeboon Bébé Garga indi ko ci làmb ji dama naan ko Bébé Garga bu arbitre ne prip sama biir wax lu fu Petit nekk fekk ko fa agressé ko xeex ak moom dalay wuy si ci làmb parce que combat bu nekk ak noo koy bëre soo xeexeek moom bu la wuysee di nga ko mën a jàpp bëreek moom ci biir bëre bi mun na tenter action boo xamante ne ñorul parce que coup yi moo bari ci moom mais nga ñàkk ñu lay encourager bu baax di féliciter Petit Lo di ko wax que ni ci làmb la bokk làmb am nañ ci moom yaakaar yaakaar naa ne wax na ci biir waxam ne conseil yëpp benn la woon mooy Petit dalal Petit teeyal Petit teeyal loolu nag ñaax la mooy na ni làmb sport jom la sport garmi la waaye xel da cee baax intelligence dafa baax ci làmb ñu koy félicité waat bu baax ci ndam li mu am sëq na jéego jëm ci kaw ñu koy félicité bu baax du félicité ñi nga xamante ni ñoo ko indi encadrement bi yëpp di leen jaajëfal gis nañ ko mel ni sëriñu mbëri laa ko mën a tuddee muy Sa Touba ànd ak moom encadré ko jàppale ko ba xale bi am ndam ku koy defal sa papa bu ko defee doom duñ na lu tax mu def ko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 mbokk yi gis ngeen combat bi doxoon ci diggante Angleterre bu dóor dóoraat ak Moustique bu caaray arbitre bi sifle na ñoom ñaar bëre nañu ba temps bi jeex ñu dellu siwaat bi ñu dellu siwaatee bëre nañ ci biir bëre ñu wure ci bëre Moustique daan kii di Angleterre bu dóor dóoraat dañuy njëkkee ci Angleterre Angleterre vraiment li ñu war li ñu gis ci yow ci loo xamante ni mënu nañ ko mën nañ ko tuddee critique ndax critique dafa baax ci mbër bariwut mooy gis nañ ni condition physique bi moo des tuuti rek ndax làmb ji vraiment ba nga simmee ko ñu bari xam nañ ni Angleterre mi indi na état de forme bu jaar yoon macha allah liggéey na ci combat bi te ni nga continuer combat bi aborder ko ci combat bi baax na waaye fin bi fi nga mujjee li ñu ci gis mooy Angleterre dafa sonn physique bi condition physique bi dafa des mu lay encourager bu baax di la wax nga gën a góorgóorluwaat ci làmb ndax yor nga taay bi yor nga corpulence bi ndam lu rëy nga jële fee arène nationale sa diggante ak màjj-màjj donc ko dóor mu daan soo ñëwee moustique daan la jaadu na loolu nag bokk na ci liy gën a defaraat sa làmb moustique ñu lay félicité parcelle nga mujj sa diggante ak buur siin booy siin am ci ndam bu rëy rëy rëy duggaat parcelle sa diggante ak Angleterre nga am ci ndam lu rëy rëy dégg nañ nga ni danga ngaa blessé sax ci làmb ji bëriwaale ko ci jom la bokk ci ngor la bokk ci fulla la bokk ci fayda la bokk waaye nag dañu maytu ndiku saa su ne bu combat di jub si mbër yi di def loo xamante ni mën na leen a gaaña ndax gaañ-gaañ yu bari mu ngi yàq làmb mbokk li bokkul ci luy defar làmb saa su ne nga dégg mbër mi ne dama gaañu wala combat bi des deux mois wala trois mois mbër mi gaañu ba pare di ci nëbbatu sa moroomu nawle di jël xaalisam di ko def ci làmb ji nga tëdd fi nga tëdd loolu bokkul ci ngor loolu bokkul ci jom promoteur bi la tëggal làmb jox la xaalisam jàpp dat def promotion yëpp nga tëdd sa kër te xam ni bis bii mu jàppkat kat du bëre wor la te war sa nawle lu ñaaw la sport nag làmb nag fow góor la fow njàmbaar la mais mbëri bàyyi leen ci xel bu baax a baax mbokk yi noonu la ñuy barastikoo rek ci dimaas bi ñaari journée dafa am. benn bu njëkk bi mooy diggante moo gate event dafa organiser woon bis beneen bi mooy euh, cinq millions yi nga xamante ni association des sages ñoo ko organiser woon mbokk yi dañuy dem ci association des sages su ko defee ñu dellu si ci journée moo gate bi su ko defee ñu dellu ci waat bu baax a baax ci waxtaan ay ca ñu dem stade Iba ba Diop wan leen daanaan yi fa ñëw ci compétition bi ay ca ñu dem di Bargny Ngor Niakh kii di Bargny Ngor Niakh ñu ngi daan na ko Babou Kaling daan na Babou Kaling dem na final Babou Kaling dem na final Babou Kaling dem na final hee eh, lamb ja yëngu na. Ngor ñaax Sidi Bargny Ngor ñaax Sidi Bargny Ngor ñaax Sidi Bargny Ngor ñaax daan na Ngor ñaax daan na Sidi Bargny Ngor ñaax daan na Sidi Bargny. Mbo ngemb ñuul lii daw na dóor na ko tànk Ibrahima Thioune wër na ko ndombo Ibrahima Thioune wër na ko ndombo Ibrahima Thioune wër na ko ndombo. Ibrahima Dioune Ibrahima Faye dóor na ko daan na ko ndeysaan wéyal na ko daan ndeysaan Ibrahima Dioune dem na final. final bee ngi noonu wàllu raw gàddu bi ngóor baabu kali combat bu garaaw ngóor ñaax doole yorul doole yemul doole yemul ngóor ñaax baabu bañ la Ndeysaan ñu ngi noonu ñu ngay bëre ñu ngay bëre Ngor ñaax baabu Kaling Ngor ñaax Babou Kaling daan na ko kii arbitre bi ngi sifflé dox ci wàllu finaal bi final poids léger bi dox ci diggante Ibrahima Thioune ak Eumeu bu Badiana ndeysaan ñoom ñaar a ngi noonu mooy Eumeu bu Badiana la tuddee boppam loolu mooy man maay Eumeu Sène ñu ne ko foo dëkk mu ne Badiana mu boole tur boo ko déggee rek xam ni joolaa la macha allah arbitre bi sifflé na Ibrahima Thioune daw na jël na tànk bi njett na ko ci suuf yegg nañ suuf yegg nañ suuf mbot na ko Ibrahima mbot na ko Eumeu jéngi na ko mu ngi koy jéem a forcé waan mbot wóor jege na fi Ibrahima Thioune am ma ña ngay bëre bëre suuf mbot na ko bañ na dóor na épaule bi. mbokk yi gis ngeen li xew fële ca stadium Iba ñuy félicité ñëpp ñi nga xamante ne ay mbër lañ ñu ñëw ci compétition bi wane seen bopp mbokk yi ñu ngi félicité bu baax a baax xale bii di Babou Kaly mi nga xamante ni vraiment ñëw na ci compétition li tax ñu koy félicité dafa ñàkk final. final ci diggante ma ngóor ñaax mais li tax ñu koy félicité mooy Babou Kaling dafa jóge drapeau chef de l'état diggante ma ngóor ñaax ngóor ñaax présenté wu ci 76 kilos Babou Kaling présenté wu ci 66 kilos ñoom ñaar kon catégorie boobu. du ñu bokk mukk ci compétition bi di bëri waaye babu Kaling wane na boppam bëre ci final bi dem bëre ci compétition bi dem ba finaal ngóor ñax daan ko ñu koy gën a ñaaxaat rek mu góorlu ndax ka mu bëreel mu daan ko di ngóor ñaax ndaanaan la ci làmb ku mu munta daan ci làmb da ngaa takkut ngem am na xarañte bi am na doole ji am na bëre bi am na fulla ak fayda ci li muy def encore une fois ñu koy félicité waat ndax yaakaar naa ne drapeau chef de l'état bi individuel bi moom moo ko jël ci soixante seize kilos bi moom Ngor Niakh ñu koy félicité bu baax xale bu nekk champion CEDEAO nekk euh, champion euh, chef de l'état bërki démb nga jël euh, li nga xamante ne mooy individuel bi dañu koy félicité mbokk yi ñu ñëw ci beneen combat bi dox ci diggante Ibrahima Thioune ak xale bii di Eumeu bu Badiana boo bu nekkoon final boo xamante ni ñoom it ñoo bëre finalu léger bi mu nekk combat bu neex ñuy félicité waat bu baax Ibrahima Thioune di encouragé ëmb bu bajaana di ko wax ni gis nañ ko léegi mu ngi ñëw ci compétition li traditionnel bi di wane boppam na gën a góor góorgóorlu loolu làmb la mais mbokk yi dañuy dem ci li nga xamante ni mooy demi finale poids lour yi ak finale poids lour bi mbokk yi su ko defee ñu dellu si waat ci plateau bi ay ca ñu dem ñoom ñaar dafa mel ni xamante nañu. waaw xamante nañu yàgg nañoo laale Mbaye Babacar. ndax général ndaanaan la ci làmb. compétition yi yokku na dooleem ba bokk ci làmb. booy fay nag kenn du ko présenté ndax ku nekk champion chef de l' état doon champion CEDEAO nekk champion d' Afrique kenn du ko kenn du la moom booy fay ñoom ñaar daal en tout laale dinañ bëre. waaw waaw bëre dina tamit dana bëri calcul. waaw non yaakaaruma ko nag. ndax ñoom ñaar ku ci nekk day bëgg a jaay sa morom du ma sa morom général noonu lay bëree booy fay da koy ubbil buntu pour bëgg général ñëw waaye dinañ laale. arbitre bi sifflé na génn seen diggante. arbitre bi sifflé na Mbaye Babacar ñu ngi noonu. général féete la di joor. booy fay féetee càmmoñ. bilaay ñoom ñaar jëli na ko donc baat ak ko lan moo xew. jeex na daan na ko daan na ko booy fay daan général daan na booy fay. Oh. jalul werante daan na ko oh, mbokk yi il est vingt heures cinquante neuf minutes général Malika moo la féetee ndi càmmoñ seen kumba moo la féetee ndi joor combat bu nar gaaw la final baa noonu mbokk général Malika démb moo finalu jël oto tay ñëwaat na général moytul seen kumba lay ngàdd ngay bañ di ko ubbil tëru na général tëru na tëru na ko da ko wala da ko nar général seen kumpa ndeysaan combat baa ngi noonu mënul yomb général fàqat na seen kumpa bañ na général seen kumpa ña ngay bëre seen kumpa daw na jëli du ko seen doole wala déet ñoom ñaar dinañ bëre général seen kumpa général seen kumpa daw na jëli ko plaqué quatre appuis quatre appuis da ko doon jëli daanu na général daanu na général jël na oto bi jël na essence bi jël bi bu subaa day dem rek fii de moom général Malika jël na démb jël na tey félicitation général félicitation général Malika félicitation. gis ngeen finaal bi dox ci diggante euh, seen kumpa ak général Malika gis ngeen comba bi dox ci diggante général Malika ak Boy fay gis ngeen ci comba bi dox ci diggante euh, seen kumpa ak yeneen xale yi nga xamante ni jot na bëri ñoom éliminer leen daan leen mbokk dañuy taxaw tuut seetlu ci Boy fay ak général Malika dañu bëre ñoom ñaar. général Malika daw sàcc ko daw ak moom lu sori tour booy fay moment bi booy fay di def rotation di tourner tegul bopp booy fay tegul épaule booy fay mais ci biir rotation bi cuisse bi dafa laal te cuisse bu laalee rek cell la rotation bi mu doon def tournée boobu cuisse bi moo laal général Malika daan ko ñu koy encouragé bu baax di ko wax ni xale la booy fay na gën a ñëw ci compétition yi booy fay dafa am lu ñu seetlu ci yow mooy dafa mel ni ñemewoo critique dafa mel ni ñemewoo pression wu làmb te yow ndaanaan nga ci làmb wax yi ngay dégg day mel ni sooy bëree da nga koy bëri te xale nga mun ngaa am lu ne ci làmb ñi ngay bëreel di leen daan say naw lañ mais ñi lay ñi ngay ñi lay daan tamit say nawle lañ kenn mënu fee daat ñëpp mënta ne gën la la góorgóorlu ñëwaat ci làmp ñuy félicité bu baax seen kumpa CEDEAO drapeau chef de l'état bokkoon nga ci sélection yi waaye demoo Serigne Ndiaye 2 la ñu jël ñëwaat nga ci compétition bi wane sa bopp ba final loolu la ñaax la gëna la ñëw wane sa bopp ci lutte traditionnelle ndax am nga taay bi am nga gabarit bi am nga bëre bi général Malika félicitation général Malika félicitation félicitation encore une fois général Malika li waral ma ni la félicitation da ngaa dem fële nga xamante ni mooy euh, euh, dëkk ba ndeysaan Kaffrine finalu sa diggante ak Mamadi Ndiaye jël final bi ba nga ko jëlee da ngaa dellu siwaat ci guddi gi xëy dimas bi ñëw fale ci stadium Iba Mar compétir jëlaat compétition bi jël nga oto bi fii ñu teg cinq millions yi yi nga jël ko loolu li la ko may mooy compétition li la ko way mooy jàmbaar ñu ngi lay féliciter bu baax mbokk yi loolu lañ leen di jëfalee bu baax waaye am na loo xamante ni faw ñu leeral ko ñi nga xamante ni ñooy suñu mbokk internet yi li tax vidéo wasaare làmb gisoo leen ci journée Mo Gates Events dañuy taxaw leeral tout mooy moo get events dafa organiser journée bu mag journée bu mag boobu ñu woo ci presse en ligne bi ne leen dañu bëgg ñu ànd liggéey maanaam def collaboration ci collaboration boobu ñuy def ak presse bi journée bu am ci ndogu ñu ne ñu kaay leen mbër mi fadam moo ma doon woo naan ñu kaay leen ndogu am na bis sàngam bërëb sàngam ñu bàyyi suñu njaboot bàyyi suñuy famille waroon mun a ndogew foofu dem ànd ak ñoom ci liggéey bi mbokk yi def promotion bi comme ni ñu ko bëggee woon ci presse bi ñu defal leen promotion ñu dem ba jour làmb ja ñu ne nañ leen jox compte mail boo xamante ni dañu koy dañ leen koy jox dañ leen jox numéro téléphone vidéo bi dañuy bàyyi ba mu am trois jours wala quatre jours nga doog ko publier waaye nag wolof daf ne juddu gu rëy ndey ak baay fulaak fayda borom Sénégal nañ leen xam ni war sa nawle lu ñaaw la loolu lu ñaaw la loolu rafetul ci làmb loolu bu ngeen ko waxoon presse en ligne bi bien avant kenn du dem di couvrir li nga xamante ni mooy ndogu mbër wala open press walla leen nit nag bëgg nañ taamu nañ ci benn jikko mooy jikko bi nga xamante ne suñu papa Gaston Mbengue daf ko yor ku ci nekk ci bokk ci làmb nga yor ko moo yaa moom sa bis yaa moom sa événement bu la neexee nga ni kenn du dugg loolu am nga ci droit waaye nag bul liggéeyloo ay nit ba noppi ñu liggéeyal la defal la promotion bi nga dem ba ci jour bi nga ne leen quatre jours cinq jours ngeen di dugal làmb ci man wax naa ko Fadam ci journée Angleterre ak Moustique man ko Fadam li ngeen def nii lu ñaaw la mu na ñu dañuy kaf dañuy mbalak rek waaye di ngeen liggéey parce que li may wax nii Fadam mu may dégg. ma ne ko Fadam mu ne ma ne ko liggéey kenn du ko caaxaane kenn du ko kafe kuy kaf wala ngay mbalak doo mbalagee ci liggéey ndox ñun lii ci la ñuy sutur te nit ki lépp li nga xamante ne ci la sa teraanga nekk ku la koy xeebal jël ko tegee ne yaakaaroon naa ne ñu coiffé làmb wala ñu bokk ci Mo Gates Events bu dee Mo Gates moo leen digal loolu loolu mu leen digal du dëgg du yoon te tegu ko fenn bu dee yéen seen initiative bu bopp la ngeen jël ko tegoo leen ko fenn.